اللهم على سيدنا ومولانا محمد وسلم رق ذكائي وعظم فهمي وعقلي احسن من قطع وهمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw ñu nu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi sant Cheikhul Xadim radiallahu anhu te di yëkkati sunu kàddu ci ndigalul ñi nga xam ne ñoo jiite programme màggal gi lépp sëriñ bi teg ko ci seen loxo buñ ci tuddee sëriñ Xaadim Mbàkke ak sëriñ Cheikhouna mu mën a yóbbaale ñi ci des di sant yàlla bu baax ci jataay bi muy jataayu islaam di jataayu boo xam ne lu mënul ñàkk la ndax dana lëkkalewaat ñëpp ñu jokkoowaat yeesalaat xol yi yeesalaat pas-pas yi waaye itam gën a jàngale njàngalem Cheikhul Khadim ñu gën koo xam bu baax jataay bari na lool waaye bii mooy doon bi ci mujj laata weer bi xam ngeen ne gis ngeen fu nekk def nañ fa ay programme waaye bii nag bokk ci ci gën a mag ñu koy defee tey ci péncum maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan kon ñu ngi leen dalal ak jàmm ñu fas yéene tàmbali waxtaan wi ki nga xam ne mooy def waxtaan wi yaakaar naa ne sëriñ euh, Cheikh Anta Samb wax na ko léegi daanaka day aada rek waaye daanaka jërul xamle ndox euh, moom ñun ñoo ci bokk yam mooy sëriñ Fallou Bousso moom Serigne Hassan moom Serigne Mbacke Bousso di boroom xam-xam bu mag ñu ràññee ko lool boo koy tënk da nga naan li doomi soxna war a jàng jàng na ko nekk professeur di jàngale waaye itam nekk doomu daara yor daara di jàngale al bii nga xam ne moo nekk fii ci banqaas bi nekk ci garage moom mooy directeur la teyit ICAB bii nekk ndaam dana fa joxe ay cours ci ñu fay jàngale la bokk loolu misaal rek ngir wan leen gan gi nga xam ne moom lañ indi fii ni dayoom toll ci xam-xam euh, mu war ñoo indil thème boo xam ne boo amu am solo la boo xam ne al académie Darou Salam ñoo ko tànn muy al wasatiya fi tatbiqi taalimi Cheikh al Xadim Sëriñ Fàllu dana ci ñëw ndax niñ ko waxee guddi na te waxtu bi mu wax la wax waxtaan thème bii ku ko dégg lim ci war a waxtaan di ko waxtaan ci une de temps kon ay tënk lay doon ba tax na nun duñ ci dugg di ci leeral dara waaye daal buñ ko tënk ci wolof mooy Cheikhul Khadim am njàngaleem ci nan la doon pratiquer li ñuy wax alwasatiye muy maanam diggu dóomu lenn lu nekk nga def ca nga yem ca fan ca war ci gàttal ci wolof waaye mooy maanaam nga bañ caa ëppal bañ caa yéesal nekk ci digg bi loolu nan la ko Cheikhul Xadim doon tabbiixee mooy xam al alquran wax na ko fu bëri wa jaalnaakum ummatan wasata wante yonent bi alayhi salaam wax na ci gën ci yëpp mooy li ci gën a digg doomu boo ñëwee Cheikhul Xadim ci masaalik mi ngi ko ciy wax bam naan fala takun mufarritan aw mufrita bul nekk ku ëppal ba jéggi dayoo waaye bul nekk tamit ku yéesal waaye na nekk ku nekk ci digg bi rek yam loolu mooy loolu nag ñu jël tamit na mu dëj maam Seex borom gaawaan borom bis bu màgg bii nan la doon dunde loolu misaal moomu Sëriñ Fàllu dana ci ñëw kon loolu moom mooy thème bi duñ ci guddal dañuy jox Sëriñ Fàllu di ñaan suñ borom subhanahu wa mu defal ko tawfiix na mu ko daan defalee waaye baat bu gàtt mooy nan ko diglu ndax baas bi liñ génne ci ay moyens ngir mu am matériel losistik bi ci nekk sañse yu rafet yi nit ñi sañse toog mbokk yi ñu woo toog lenn yi la dong moo tax mooy kàddu yi muy bëgg a ñu bàyyee ko xel te jëfandikoo ko su amul rek jataay bi day neen kon nañ ko bàyyi xel bu baax te xam ne solo si yi muy bëgg a yëkkati kàddu daal moo waral coono yi yëpp ñoom suñu xaadim daj ko ci na ñëpp diglu teewlu ko bu baax a baax te fas yéene cee jariñu kon sëriñ Fallou taxawal bismillah taxawal jataay bi mel nii te di ci jàngat yenn ci tomb yi nga xam ne nii war naa yitteel nit ñi di sant tam si Aboubacar mi nga xam ne ni moom lañ seetal jataay bi ak nga xam ne ñoom lañ fekk ñu war a seq ñoom waxtaan wi li ci màgg yi ñu war ko caa mottali di ñaan nag ci di ñaan ci barkeb barab bi ak barkeb bis bi nga xam ne ni moom la ñuy séentu te di ci fàttaliku daje bu siiw bi Serigne Touba radiyallahu anhu daje woon ak Maam Sa Anta fii ci Daaru Salaam di bis boo xam ne ni bisu mbégte la woon. waaye itam bisu sant la woon bisu ñaan la woon ñu dellu ci mbégte moomee ak cant googee dugal suñu mbégte ak suñu ci biir waaye ñaan suñu borom xettali bi ci fitna yi nga xam ne moom la dund ak jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la askanu doomu aadama dund ci kaw suuf ci jamono ji te buñ doon xool fitna yooyu ak jafe-jafe yooyu mën nañu wax ne bokk na ci yi koy sabab yi ci ëpp solo bokk na ca. li ñuy tuddee ëppal ëppal mooy li ñuy tuddee extrémisme ëppal ci ab jubluwaay mooy safaanu digg doomu bi sëñ bi doon wax léegi te léeg-léegi mbir nag boo ko bëggee xam ne mën ngaa jaar ci safaan ngir xam ne moom mooy lan kon ëppal mooy safaanu digg doomu bi nga xam ne nii moom la war a waxtaan tey ëppal nag di melokaan wala jikko joo xam ne ni daa mel ne saa yu day gën di tasaaroo ci biir nit ñi ci façon yu bëree bëri dana feeñ ci ëppal ci wàllu diine pas-pas dem ba gëm ne yow sa pas-pas dong mooy pas-pas keneen amul pas-pas dem ba gis ne ku wuuteeg yow ci xalaat ci pas-pas bi ngeen bokk yoon nga def ko bi yéefar wala nga def ko nit koo xam ne nii ku jëmul fenn loolu ëppal la ci wàllu diine dem na ba ci ëppal ci wàllu li ñuy wax idéologie te mooy giseen ci wàllu doxalin ci wàllu àddina bi nga gis tey boo xoolee àddina bi tey li ñuy tuddee libéralisme ni mu dominé àdduna bi tey libéralisme boo xam dafa ëpp dem ba jéggi dayoo nit di rey mbokkam ngir na dund nit di faagaagal mbokkam ngir mën a dund ci wàllu àddina kese te muy bopp sa bopp koo xam ne nii dem na ba jéggi dayoo ba feeñ fépp ci àddina bi loolu ëppal la dem nañ ba ci ëppal ci wàllu nationalisme xeet bu dem ba gëm ne moom mooy aw xeet ci kaw suuf. tey boo demee ci réew yu bëree bëri ëppal googu mën fay feeñ li ñuy extrême droite muy xeetu yëngu-yëngu yoo xam mi nga am ci yenn réew yi nga xam dañoo gëm na ñoom ku dul waa réew ma doo nit wala sag nit te manqué la loolu ëppal la ci gëm sëw askan dem nañ ba sax ëppal ci wàllu ay secte maanaam kuréel gii laa bokk kii ne fii laa bokk kii ne fii laa bokk mën nañoo bokk sax jenn diina juñ gëm waaye kuréel yi ñuy séddaloo ci biir ku nekk far ci sa kuréel ba ëpp ba taxaw di wax wax ju jëmale wax ju safaanu di ko jëmale ci ki nga xam ne nii moom nga bokkal diine waaye xëy na bokk leen ay naan waaye ci diine loolu ci ëppal la gi sax weesu na fa dana ba léegi ba làkk yi gëm ne saw làkk moo làkk yëpp wala gëm làkk sàngam ku koy làkk amul solo loolu lépp ci xeet ëppal yi la bokk ëppal daanaka foo xool ci gëstu ci dundin askan wi da koy fekk ci biir loolu nag ay mbooloo ñoo ci lool ay junni junni doomu aadama yoo xam ne nii ñu ngi faatu par bis ay millions ci ay doomu aadama yoo xam ne nii ay daw làqu lañ dañoo daw génne leen fitnaan leen ñu génn seenum réew dow làqu ci feneen te ñoo ñëpp boo ko xooloon la ko sabab mooy nit ku ëppal moo sabab loolee tey boo xoolee ñaata jullit lañuy rey ci àdduna bi ñaata jullit lañuy ñuy ci gox yi wuute ci àdduna bi ngir seen pas-pas wuute na yeneen pas-pas yooyu ci fan yi wees rek am na fu ma liir ñu bind ko fa ñu ne mu ñuy wax Siin léegi am na fa gox yoo xam dañoo xewal bu fa doomi jullit ya juddoo jullit ya fa nekk seen doom bu ñu juddoo dañ leen di teel a xooñ ci tàqal leen ak seeni i ndax dañoo jàpp ne seen waajur yooyu ay jullit lañ. te xale yi bu ñu yaroo ci seen biir danañ dugal ci ñoom ëppal ki nga xam ne nii moo ne ci ñoom kon ñoom dañuy dem ba fàtte ne ñoom loolu ñu def si boppam na ak ëppal la ndax doom xale bu tuuti nga taqale ko waajuram ngir ne yaa ngi koy bëgg a loo xam ne ëppal la loolu ci ëppal la bopp boo xoolee tey ñeneen ñi nekk bon ñeneen ñi nekk jeneen diine ji ñu tëdd leen ay chrétien ci misaal léeg-léeg benn benn ci suñu mbokk jullit yi ñoo xam ne nii dañuy xëy xëy rey ci mbooloo te doo xam sax luñ def bu yàggut bu ngeen fàttali ko ci réew mi ñuy wax ay nangami téeméeri nit yoo xam ne nii ca église bañ doon jaamoo seen yàlla ñoom fale leen ay nit fekk yoo xam ne nii mën naa am lislaam la ñuy tudd rey leen ñoom ñëpp demee Sierra Leone bu jege gii ay chrétien def leen lu mel noonu leen ña leen faagaagal lislaam la ñuy tudd loolu itam xeetu ëppal la kon boo xoolee tey ay nit a ngi nii di jóg di daani seen doole dem ci yeneen réew réew ya boo duggee ñu lay dàq comme ñuy dàqee weñ wi ñuy wax tiisi tiisi nga xam ne réew moom dugg faagaagal ko yàq rek lay liggéey nit ña fay jublu noonu lañu ñu di dàqee loolu ci xeetu ëppal la bokk loolu lépp kon boo gisee mi ngi jógee ci nit ku ëppal ku extrémiste koo xam ne nii mooy jëfandikoo lu mel noonu ëppal day dem ba tax nit ki bu nekkee ci nit ki day dem ba gis-gisu biiram mu dul fonctionner maanaam sa gis-gisu biir say bët mën nay xool waaye sa gis-gisu biir boobu moo dul doxati mooy dem itam ba sa humanité gi newoon ci yow da koy paralysé ba nga xam ne nii dootu dox te loolu nag bu ko nit ñàkkee day mel ne ak doomu aadamaam moo fa nekkatul jëm moo fa nekk waaye doomu aadama nekkatul mën nañoo wax ne bu ñuy tiit ne àdduna bi troisième guerre mondiale dana fi am bis buy tàkk ci xeeti ëppal yooyu mën nañu jàpp ne te lay tàkk tey sax mi ngi xeeñ ndax boo xoolee guerre yi baree bari ci àdduna bi ñi ngi koy taal lu ko sabab nit ñu ëppal ci seen diine ñoo ko sabab te diine sax yoonam néewu ca ndax diine sant lool kenn wala ñu ko taal mooy ay nationaliste yoo xam ne nii gëm nañ seen bopp ba jàppale ne yeneen xeet yi waruñoo dund loolu na kon foo xool danga ko fay gis buñ gënee lu ñu gën a jege ñun muy murit gi ñuy dund tey te war cee waxtaan bu nu ko xoolee moom it day mel ne mucc ci ëppal gi léeg mu feeñ ci lenn ci murid yi du murid yëpp waaye lenn ci murid yi seenu déggin ci njàngaleem sëñ bi léeg gis ne ëppal dana ci dugg te loolu dana ci gën a ñëw ci kanam loolu lépp na kon ay xeeti mbir la yoo xam ne nii war nañ ko gëstu te jéem koo wutal ay tont yoo xam ne nii ki koy dégg moom dana mën a dëppoo xelam te xelam dana ko mën a nangu war nañ koo gën a xóotal tam ba xool lan moo war sabab lu mel noonu am ci àddina bi suñu gëstoo sabab bi ba noppi war noo xool yan solution lañ mën a proposé ba nit ñi buñ ci jaaree ëppal googu mën naa am dana wàññi ndax ëppal kat day la ci àddina bépp sécurité sécurité doomu yi seenuk dal ëppal googu mi ngi koy menacé léegi àgg na ci léegi kenn mënut a am dal jaamu yàlla sax ni nga bëgg a jaamu yàlla ndax yaa ngi ragal ku ëppal fekk la fa nga jaamoo yàlla dal ci sa kaw mën na ci joxe misaal moo xam ne nii bu yàggul rek am na ci mel ni réew ñoo xam dañoo taxawal di naafila ci jàkka jinax jinax rek moo feeñ ci jàkka ji tas julli ga mbooloo ma rëg-rëg yi am ñu ci damm ñii gaañu ci lu ko waral ndax jàpp nañu jinax jooju dañ ko piège jinax ñu piège mooy jinax doon ñoo dugal ci biir bomb bu nee tëll ñëpp faatu loolu nga gisee nit ñi kon amatuñ dalub jaamu yàlla amatuñ dalub liggéey gi war a liggéey loolu lépp mi ngi sababoo ci nit ñoo xam dañoo ëppal tey itam ku nekk sa dund gi nga waroon dund mu teey lool ci kaw suuf day mel ne yaa ngi yëg loo xam man koy naxal loolu la kon laaj nañu waxtaan muy problème boo xam ne jafe-jafe boo xam ne itam yàgg na fi ba doomu aadama ba sosoo ba léegi kon day mel ne dafa ànd ak ñoom xëy na nag day gën a fës ci ay jamono léeg-léeg itam mu dellu gannaaw léeg-léeg mu fesaat ndax boo xoolee am na ñoo xam ne sox ñoo fi jiitu diine diine yi ñu wax yi ñu xam ñun te suñu borom wàcce ko mu jóge ci asamaan muy lislaam yahudiya ak masihiya ak lislaam njëkk diine yu wàcc am na benn benn yoo xam ne ni teeloon nañoo xalaat ci ëppal googu nu ñuy fexee ba raxas ko ci nit ñi moo tax ñu daan wër di jàngale ne ñoom lu baax ci boppam ñoom nee nañ mooy lu digg dóom mooy loo xam ne ni dóob du lu yées ni ko suñu aboo doon waxee léegi ñu ne mooy lu baax ndax bu dee daa ëpp dafa jéggi dayam te dañoo wax ne lépp loo xam ne nii dafa dem ba ëpp day soppaliku safaanam lépp lu ëpp rek soppaliku safaanam mbaax sax bu ëppee soppaliku safaanam lewet gi nga gis muy jikko ju baax lool bu ëppee ak yambare lay jur ci nit kon lu ëpp rek day soppaliku safaanam kon ëppal moom yées daf baaxul waaye nag yéesal itam mooy lu matul ñu ne la kon boo bëggee nattaale lu baax dëgg-dëgg natt ko ci diggante ëppal ak ak néewal la fa digg doomu loolu mooy lu baax ñu xool ñu ne kon bakkan doomu aadama dund doomu dafa war a mel ne fas woo xam ne nii wala saret boo xam ne nii ñaari fas wala boog ñaari ñaari daamar ñoo koy xëcc ni muy amee léeg-léeg ci ñun ñaari daamar yooyu koy xëcc nag dafa war a am ku ne ci kaw yor yor laab jën di leen giide mooy tax kenn du xëcc jëm feneen mu ëpp sa morom ñu mën a tegu ci tracé bi dox ci yoon loolu mooy doomu aadama doomu aadama bu nekk yàlla bind na sa biir xëtar xatar maanaam xatar mooy lii tax ngay mer waaye itam bind na sa biir bànneex te mooy lii tax nga topp sa bakkan war a am nag loo xam ne nii mooy réglé loolu ndax ñu bàyyi xel ci ne nit dafa war di mer di fa di kontaan nit koo xam du mer rek mooy nit koo xam ne nii na mu war a mel melu ni nit daa war di mer waaye nag nit ki dëgg-dëgg mooy koo xam bu meree dana xam nu muy téye boppam bu kontaanee dana xam nu muy téye boppam ba du jëppal ci genn fànn loolu nag la koy may mooy am ku ne ca kaw di wommat te loolu mooy xel mi xel moo war a fonctionner ba nit ki mën a tànn jéego boo xam ne nii mooy nekk ci digg moo tax dañ lay wax ne la njàmbaar ci boppam bu ñu ko doon xam ne dañ naa mi ci diggante naa avancé ak naa arrière. naa avancé boo gisee ne avancé moo baax naa arrière ma gisee arrière moo baax njàmbaar foofu la nekk waaye képp koo gis muy avancé rek te du xalaat kooku ci arab mutahawir lañ koy mutahawir mooy njàmbaar joo xam ne nii am xel lalu ko ñaare kooku mën naa alak boppam ci loo xam ne nii jëru ko loola ñàkk a diggu doomu moo koy indi ñu ne leen tabe ci boppam jikko ju baax la waaye dafa war a diggu doomu ñu ne la mi ngi ci diggante maanaam yàq ak nay maanaam yàq ak téye foofa la tabe nekk bu ëppee yàq lay tudd bu yéesee tudd nay bu nekkee ci digg bi lay door a tudd tabe moo tax alxuraan di jàngale ci façon bu leer nañ bi muy tàgg gaay yàlla yi mu ne ñi nga xam ne nii seen alal dañ koy jël di ko dépensé waaye doo du yées duñ joxe lépp ne tocc waaye itam duñ téye lépp te waroon koo joxe duñ joxe kon danañ nekk ci digg ba suñu aboo waxoon na ko léegi sulaas jàngale woon ne li gën ci mbir yi mooy li digg dóomu moo tax lislaam bi mu ñëwee li mu njëkk a xeex mooy ëppal ak teengal ci diine ndax ëppal ak teengal ci diine day tegtale ne nit ki ni mu war a déggee diine dégg ndax diine lislaam diine jàpp ndab la waaye du diine taral moo tax yéen daan dénk saxaaba yi ne leen fu ngeen mënti dem dee leen jàppandal mbir yi te bu leen ko jafeel bu leen teengal mbir yi ba nit ñi duñ ko mën a dund waaye nag xëy bu leen ko yoomal tam ba nit ñi jàpp ne dara kon na ngeen ne ci digg daane ne képp koo xam yaa ngi teengalanteeg diine di ëppalanteeg diine diine dana la not ndax moo lay ëpp doole kon ëppal bari na fa muy feeñ digg doomu nag mooy safaanu ëppal te ci lañ war a waxtaan tey sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu tam ku nekk xam na ne sëñ bi bi mu ñëwee sosul lu bees moom bi mu ñëwee ci boppam moom dane man mu jaddit damaa ñëw ngir beesal waxam jëpp da koo dugal ci baatu beesal mooy fekkoon naa lislaam ji nit ñi di ko dunde noo xam ne nii mën naa am ëppal googu ñu doon wax feeñ na ci biir dunde nu moom wala boog am ñoo xam ne nii dañ koo yeesaloon ba mbëpp mu war a ñëw nag fàttali kon digg doomu lislaam googu moo tax sëñ bi li mu lépp génnul ak digg doomu niñ koy gisee jamono ji kon li ñu gis léegi nag ci mbedd yi di ko gis ci kër yi di ko gis ci barab yi yu baree bari mu mel ne ak ëppal daa commencé dugg ci biir taalibe yi ci biir murit yi loola mooy jur léeg-léegi am murit dem ba xolam jóg ba muy jëfandikoo doole te fekk na siñ bi moom ku nekk xam na ne jihaadam jëpp mi nga tegoon ci fexe ba nit ki nangul ko te du jëfandikoo benn force du jëfandikoo jenn ngànnaay nga gis ne nag ñun bu ñu xoolee suñu biir te waxante suñu dëgg danañ xam ne ëppal léegi am na ci kàddu yi waxin yi ëppal da ciy feeñ lool dem bay jëfandikoo yenn termes yi nga xam ne ni sëñ bi ci boppam bu ñëwaatoon mooy njëkk dal ci sa kaw nga di ko jëfandikoo di ko jëmale njàngu sëñ bi fes na ci biir mbir mi ëppal sax feeñ na ci ba ni ñuy doxe léegi nga xam dañuy jàpp ne bala ngaa nekkub taaliba dëgg-dëgg sa xalëf-xalëf day bari koor gis dóor ko mbagg jaar ci kawam jàll wan ko ne ko murit day day njaxlaf xëy na murit day njaxlaf waaye njaxlaf gi tam dafa am nu ëppal gi dana ba ba feeñ ci suñu ñuy solo léeg-léegi nit romb la xër gum xër ci yoonu xëy na te xamul njàngaleem sëñ bi moo tax da ngay gis mu sol mbubb yu baree bari te benn du ci bokk morom bi boo xoolee tànk yi da ngay gis mu mu takk ci sax ay ceen ci tànk yi takk ci ay xomb boo xoolee baat bi da gis mu ràngoo lu baree bari loxo yi boo ko xoolee da gis lu baree bari na ca na yi doxee sax boo ko xoolee dangay gis ne kee. dafa jàpp ne loolu mooy njàngale te fekk na loolu xeetu ëppal la yoo xam ne nii mu ngi gën di feeñ ci biir melokaanu murid yi loolu it laaj nag nu war a mën a taxaw def ci jàngat yu am solo yoo xam dañ koy teg ci njàngaleem sëñ bi waaye teg ko ci xel mu set moo xam ne dañuy jéem a xam lu tax loolu di feeñ ci ñun jéem a xooli nag yan solution lañ mën a am ci loolu waaye bala ñu agsi ci loolu dañ tënk tuuti ci digg doomu ni ko lislaam jàngale woon digg doomu nag bu ñu ko waxee mooy nga yamoo ci baat arab dafa ab baat bu ñuy wax i'tidaal wala boog àdd mooy lu lu yamoo loo xam dara ëpp ci mi ngi jógee ci sëf bi ñuy sëf gëléem wala borom tànk yu gàtt yi ñaari boo koy sëf da nga ko koy gàcc boo koy gàcc nag la nga koy gàcc ñaari wet yi dañoo war a tolloo bu fekkee tolloo woon genn wet gi day wat gi ci des sëf ba day daanu ñu ne leen noonu ñu war a tolloo nag loolu mooy ak maandu loolu mooy ak digg doomu mooy wet gii dóog wet gii dóog kon ertidaan te mooy lu yemoo lu tolloo foofu la ñëwee nit ki nag noonu sëf boobu noonu ngay fexee ba mu tolloo ba genn wet di ci wat morom ja ci saw dundin yow da koo caa war di xool di ko ci bàyyi xel sa imagination li ngay xool ci sa biir xel nga fexe ba digg doomu feeñ ca bi ngay appliquer li ngay xalaat nga fexe ba digg doomu feeñ position yi ngay am bu mbir amee position bi nga ciy jël nga fexe ba digg doomu am ci comme mooy lépp looy def say orientation say choix yi ngay def sa yoonu xalaatin bi nga jël sa melokaanu jikko yépp nga fexe ba digg doomu googu di ca feeñ ba ci sax ni ngay appliquer sa diine nga fexe ba digg doomu googu di ca feeñ boo gisee ñuy jàngale ci lislaam naan lislaam day bañ nit ku làbbewu làbbewu bu ñu ko waxee fii li muy tekki mooy nit koo xam danaan man day àdduna bépp dama ko bàyyi bëggatuma ci dara lislaam day aay lu mel noonu dañ ne la boo nekkee ci àdduna bul fàtte cër bi la yàlla jox ci àdduna li la yàlla jox nga war cay wut àllaaxira nee na bu ca fàtte cëru àdduna loolu daf lay tegtal ne kon dangay teg tànk fii teg tànk fële waaye bul ne damay wan gannaaw àdduna ndax àdduna bi boo ko wanee gannaaw doo mën a liggéey àllaaxira dangay wut li nga war a fexe kon mooy fexe ba am équilibre boo xam ne nii da nga mën a doxal sa àdduna waaye doo fàtte sa àllaaxira loolu na lislaam ni mu ko jàngale day feeñ ci barab yi baree bari dana jëkk feeñ ci pas-pasu lislaam pas-pasu lislaam boo ko comparé yeneen pas-pas yi da nga gis ne lenn lu xel mënta dégg nekku ci loo gis ñu dugal ko ci rek te xel mënu koo dégg rek doomu aadama moo ko ci dugal waaye pas-pasu lislaam lu simple la lu yomb xam na li ñuy wax talsam te mooy talsam mooy baat yoo xam da koy wax te du leer sa bopp wala pratique yoo xam da nga koy def te du leer sa bopp loolu amul ci pas-pasu lislaam lislaam li mu jàngale lu semple loo xam ne nii daanaka xel mu nekk war na ko mën a dégg su fekkente ne xel ma seet na te dara taxu ci ba ci sariya te sariya xam ngeen mooy li yoon yi lislaam tëral ngir ñu war cee attewoo moom it lépp ak digg doomu la ko teg lenn liy teengal néew ci waaye itam lenn loo xam ne nii day woyefal ba jur ak bàyyandiku dañ ko ciy daw moo tax lépp loo xam ne nii xat-xat lay jural nit ki mu kàllaf mu nekk lañ la lañ la togg ci jëf boo dee ba mu nar laa jutal yenn xat-xat yi am na woyefal yu baree bari yoo xam dañ la koy defal te loolu itam dana wutale lislaam ak diine yi nga xam ñoo jiitu woon lislaam ci gëstukat yi saxal nañ ne diine yi jiitu woon lislaam am na ci bàkkaar yoo xam boo ko masaan def la koy saafara rek mooy nga rey mooy nga rey sa bopp moo lay tax nga mën a saafara bàkkaar boobu tey ba léegi ñun am na diini yoo xam li ñuy wax xat yi atul asliya mooy njuumte la sunu aadama defoon ñoom dañoo jàpp ne dañoo ñëw àddina ngir kafaaraal njuumte loole moo tax waxuñ dara ci àdduna àddina bépp dañ ko jël teg ko fële fa séeni ñoom lépp ñu ne ñu dañuy kafaaraal bàkkaar boobe te lislaam teguñu loolu diine yi jiitu woon lislaam am na ci joo xam ne nii Inde la newoon diine jooju bokk na ci principe yi ñu tegoon moo di ne am na foo xam ne ni daraja joo xam daraja joo xam boo fa àggee ñoom dañ koy tuddee mabdaul uryi wal intihaa maanaam daraja la ju kawe ci ñoom boo fa àggee da ngay def yaramu neen da ngay summi ko ba set dem taxaw ci naaj wi naaj wi di la lakk da ko ba set dem taxaw ci naaj wi naaj wi di la lakk ba nga faatu ñoolu ñoom daraja ju kawe la woon ci ñoom joo xam ne nii maanaam ña ña ma àgg ci diine ci kaw ñoo ko doon man ci diine yi jiitu woon lislaam am na ci diine yoo xam ne nii bu sobe masaan tax sa yére fa la sobe si tax da koy dagg doo ko raxas doo ko fóot waaye da koy dagg sànn yooyu yëpp xeeti teengal la yoo xam ne nii amoon na ci yeneen diine yi te duñ ko gis ci lislaam lislaam jàngaliwul loolu moo tax bu bokk na ci ñaan gi ñu ñaan ci lislaam dañuy wax naan wala tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi ak wala taxamil ale isran kama xamaltu ala alladina min qablina maanaam muy coono yoo xam ne nii amoon na ci yenn diine yi nga xam ne nii amoon na ci ci yooya ñun ñuy ñaan suñu borom dañu ko teggil loolu tegtal la moo tax ci diine lislaam teguñ kenn loo xam ne nii mënoo lépp loo xam ne nii togg nañ la ko ci jëf te nga dem ba nga xam ne yow mii da nga koo mënul lislaam daf la koy wàcc lislaam daf la koy wàcc jëf ju mënti doon boo dee ba mu wóor la ni mii mënatoo te sa digg yàlla xam nga ne mënatoo jëf jooju def lay wàtt moo tax yàlla tegul kenn lu mën moo tax saxaaba yi neeñ dañu daan ñëw di jaayante yéen salaasam ne ko loo ñu digal daañ ko def de loo ñu ter dañ ko bàyyi mën ne leen ci li ngeen seen kem kàttan ngeen koy def moo tax fa fattaqullaa mastata'tum ñëw ci alxuraan mu ne ragal leen yàlla waaye nag kem seen kem kàttan waxuñ nag kem kàttan ku nekk yaa xam sa kem kàttanu waxuñ mu kii loolu waaye yaa xam si képp kàttanu bopp am yeneen wayfal yu baree bari yoo xam day dugg ci lislaam ci misaal booy tukki ku nekk xam ne tukki coono bi ci nekk maanaam yu baree ba dañ la koy wayfalal soo wéradee ñu wayfalal la su fekkee dañ laa forcé ñu wayfal la su fekkee da ngaa fàtte ñu wayfal la su fekkee dañ laa da ñu wayfal su fekkee da ngaa dem ba yëf yi tasaaroo ba mucc jafe lool am na yeneen wayfal yu ci dugg yéen kon xeeti wayfal la yoo xam ne lislaam sàmmonte na ak moom ngir xamal ñu ne ak woyafal yu mu ci biir lislaam ak yeneen yu baree bari yoo xam ne nii xëy na buñ ci gën a yaatal day jël temps bu baree bari moo tax lislaam nanguwul nit ki di araamal ci boppam loo xam ne ni yàlla moo la ko may loo xam yàlla moo la ko daganal nga bëgg a xëy xëy araamal ko ci sa bopp lislaam daf koy aaye te yéen di place moom la ci yàlla njëkk a dal ndax yoo xam ne da koo daganoon lool xëy na mu bëgg koo xañ boppam ngir am yu muy sàmmanteel yàlla wàcc alxuraan ne ko nag yow amoo sañ-sañu araamal ci sa bopp loo xam ne yàlla moo la ko daganal loolu kon benn jullit amul sañ-sañu def ko nga gis ne tam ci jëflante yi jëflante maanaam digg doomu lislaam daf ciy feeñ ci wàllu jikko ak wàll melokaan moo tax ci lislaam ay ñett ñett bari ci loo gis dañ la koy def loo ñetti xaaj ngir nga mën a digg doomu ci misaal tey dañ ne la yow jëmm nga am na àq joo xam ne nii sa digg ak sa boroom la am na àq joo xam ne nii sa digg ak sa bopp la am na àq joo xam ne nii sa digg ak mbokk yi ngay dundal ci kaw suuf la mu ne nag fexeel ba ku nekk nga jox ko àqam te bu ko xañ leen loolu ak digg doomu lay jàngale sa alal lislaam lim la sant mooy nga def ko ñetti xaaj benn bi nga def ko ci sa bopp bi ci des nga def ko ci ñi nga war a taxaw beneen bi nga denc ko ngir ëllëg bu la jafe-jafe dalee nga mën ko caa faj loolu ak diggu doom lay jàng kon lislaam nënguwul ak làbbewu nanguwul toroxal sa bopp nanguwul doyadal sa bopp moo tax mu jàngaleen bu yàgg ne bu leen tiit bu leen jàq ndax fu ngeen mën di toll yéenay féete kaw su fekkee seen pas-pas dëgg la ci yéen amit ci wàllu ni ñuy wootee jëm ci lislaam moom it ñu war koo bàyyi xel baax lislaam daf cee jàngi woon jàngale woon ak digg dóomu goo xam war nañ koo gën a bàyyi xel mooy ki ngay woo di ko dugal ci diine nga waxtaan ak moom ci waxin wu rafet ak waxin wu dal ak waxin wu nooy goo xam ne ni ak doye ji du ca feeñ waaye itam teg ko ci argumentation boo xam ne nii dana ko mën a convaincre ci gën jaa rafeti anam moo tax ñi daan tasaare njàngaleem islaam dañ daan wax naan bu ñuy dem nañ jiital melokaan dóor indi atte bu ngeen xoolee njàngaleem sëñ bi li ko gën a tasaare yoon woowu ci la bokk mooy sëñ bi dafa defar ay nit samp leen ci ay barab ñoom buñ demee duñ ne kenn kaay jéblu duñ woo kenn waaye seen melokaan rek lañuy yor ne ca biir nit ñi di leen xool di gis melokaan yi mu leen di neex ñi ñëw di leen fekk si boo ñëwee nag ba agsi ci ñoom nag ñu la ah man kat nii ma mel boo ne bëggee mel li faut nga def nangam ak nangam lislaam tam noonu la sant ñu woote ci waaye su fekkee dangaa ñëw ci barab tàmbali ku wax ñu dagg sa baat ku du nangam ñu dagg sa loxo ku di ñu téeru la téeméer yar maanaam nga xam ne yi metti yi rek ngay tudd bu yàggee da ngay fañ loo fañ loo nit ñi lislaam te doo ko yëg loolu tam ñu war ko bàyyi xel ci tasaare njàngaleem sëñ bi waaye ci tasaare njàngaleem lislaam kon digg doomu lu am solo la ci lislaam moo tax mu am tur yu baree bari foo déggee siraatul mustaqim ci lis ci ci ci ci waxinu lislaam mooy lu digg doomu foo déggee mu wax baatu sabil sabil moo yoon wu xàll wu yaa te jub foo ko déggee mooy ak digg dóomu moo tax xeeti jaamu yàlla yi digg doomu daf cee feeñ fi ne boo xooloon tey jaamu yàlla yi ñu farataal ci yow nga xam ne mënoo ko ñàkk bañ a def ci bis bi lépp lépp lim lay dikk boo ko xooloon du mag fanweeri minute wala du ko wala bu yàggee ba yàgg dog benn waxtu kon bàyyi nañ la ñaar fukki waxtu ak nangam yoo xam ne mën nga cee jëf yeneen xeeti liggéey. yeneen xeetu jaamu yàlla yoo xam ne nii ak coobarewu lay doon ak yu mel noonu jaamu yàlla yooyu ak jikko yëpp da ciy feeñ ba ci say ni ngay bëgge ak ni ngay bañe lislaam daf lay wax ne la na nga ko def ci diggu dóomu ñu ne la booy bëgg nit na nga xam na nga na nga ca na nga ca diggu dóomu naka noonu tam safaan ñu ne la booy bëgg nit na nga diggu dóomu ndax bis mën naa ñëw ka nga doon bëgg ku nekk sam noonu te boobaa noonu bu la xam lay doon te kon boobaa la muy wax ci ci lay gën a doy ñu jàngal la ne la même julli boo koy def bëgguñu ngay yooxu ca kaw xëy na bëgguñ nag nga koy wax ba kenn ki suufeel ba ëpp waaye bëgguñ ngay yooxu ci kaw ne ko ñenn ñuy defe loolu bekk ci xeeti ëppal yi nga xam ne nii mi ngi feeñ ci suñu biir léeg-léeg nga nekk ci barab boo xam ne ñoom da ngay bëgg a teewlu waaye nit ñi dañuy jàpp na ñoom maanaam la may jàng daal xasiida la wala alxuraan la wala yu mel noonu am naa sañ-sañu yooxu bakka ca kaw ba ka bëggoon a teewlu sax dootu mën a teewlu loolu tam xeeti ëppal la yoo xam ne nii lislaam jàngalewu ko njàngaleem sëñ bi tam ñëwu ci